mu ngi fàttali bu baax a baax de.
maa ngi koy fàttali bu baax a baax de sama bopp laa jëkkee te sama bopp laa njëkkee ku may jox ndigal ak ku may jox ndigal ku may laaj ndigal ak ku may laaj ndigal ko fàttali di ko fàttali ku ma bokkal lislaam ji di ko fàttali it ku ma bokkal lislaam ji ñu seere ne ma maa ngi diine lislaam yi ci laa ne ni ma seere ne diine lislaam yi ci laa ne te duma ko booleeg dara te duma ko booleeg dara lu dul moom nag lu dul moom nag ba ma teg defar ba ma teg yàq aw ma ca defar aw ma ca yàq loolu ma ca dara doonu ma ca dara asalaamaaleykum
asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu taw bu yar saq yi aman ki taw bi wasaqum kana day qiyasin ajilan bil bisi mahmadin hatta atuma dini laha kana يجلس جمعين توعى وحمن يقني هذا وراء وتؤتي باسم الكرع كسما والآل والهو بلا مشاكل أجيب مسلم من حاتم أجيب محمد ولا أتى لباقي بلا سبحان الله سبحان الله مسلمين ونحن آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والحمد القديم وأطول هي المجلس القديمية برأي من من دي لك ورث الله بكت أسأل دولة ولا جد kon moom kon xam naa ko kon mën naa yaatal kon rek kon mën naa yaatal mën naa yaatal ndax ndax ndax ndax yu bari bu amee te kenn waxut it mën na jàll maanaam maanaam maanaam nit nit ñi ni ñu ni ñu dëgmalee tubaab yi dë dëgmal ko dëgmal goo xamante ne ci ëpp na xamante ne ke kenn kenn amatut benn xalaat lu may nu tubaab bi wax rek noonu la saa salaam moom moo ko waxoon waxam waxam ju tiis ja da ngeen toppi aada ñi leen jiitu woon chabran bi chabra ba sax bu ñu duggoon ci faxum mbëtt sax ne loola moo mooy la xew ngeen ne loola xew topp saa bi ne ko ah xanaa ñooñu du ñu wax li misaal yi mu ne xanaa ah waxuma ñeneen di ñooñu rek ah loolu waxoon na ko wax waxaati ne kat xeet yooyu ñu jiitu woon mu jox li misaal yi danañ këpp ci seen kaw danañ këpp ci seen kaw ni bool bu bu bu defoon aw ñam noonu ko noonu ko sànq lañ lañ jël di di këpp ci kawam. ñu ko booba nag ak ñu la mën a déedéet waaye doye di alwaxaan doye di bëgg dund dina dee te axoon kat ne woon na kat taale mu ne kama yàlla mun watar jona mi mi mi laxil ala yar doon yéen kat da ngeen di da ngeen di métti lu ñuy métti lu yëfër yi yëfër yi dafa ay coono yu bari ñu ngir bëgg seen sax jàll yéen way gëm yi ana ngeen kon te yéen te yéen kat yaakaar ngeen ñu yakoon ndax ndax ñooñu sonn ñoom yakoon ëllëg te yéen nee ngeen ni àll ngeen yaakaar maanaam Cheikh Saliou Makin Cheikh Saliou tedd moom mais yàlla moo waxoon moom ne ngeen seede ne man maa ngi ci diine lislaam seede ne man maa ngi ci diine lislaam daal ne lu daal ne lu dul lislaam aw ma ca defar aw ma ca yàq loolu waxoon de moom loolu waxoon loo xam ne siiw jë gàtt lool tënk lool nit ñi mokk nañ ko kon kenn waru koo lënkale ak lu dul islaam kenn waru ko lënkale ak leneen lu dul islaam Seydina Omar adila anhu alfaaruq bayna alxaqi wal mayni adila anhu anna bi moom day mooñu mooñ mooñu saraxoon wutal ñu symbole boo xam ne day dàqale diggante dëgg ak neen mooy alhijra di hijratu sidina nabina muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ari gàddaayam nga de moom xamsatul tunaa faaruq la ci diggante kufru ak iman kon foofu kon warees na koo mën a taarixal muy suñu mu ci tamit suñu taarix mooy Sina Omar day ku civilisé woon la ko ko amoon culture bu yaatu la ko ko xamoon la yu bari ndax dawlu islam yi bii moo ko moo ko moo ko moo ko tabax ci état islamique bi ñu mu tëdd kon kooku kon xam nañu lépp lu lu lu dagana jéggaani jéggaani na ko indi ko ci islaam ba ca dëgganut mu teg ko fee kon bu dagal noonu kon kon ci pas-pas li taarix yi symbolisé maa ngi wax démb kenn naa ko naa ko marathon ndax xam nga lu ñu firi marathon alif laam miim qad ghulibat Rum bi Perse yi gañee gañee na- nasaraan yi muy Rome yi muy Italie gi tey maanaam ba yéefar yi nag ca Makka di ñaawal jullit ñi naa leen yéen dañuy ñi gëmut yàlla gañe nañ ñi gëm ñi gëm yàlla yàlla ne min baadi xale bi seex li gudd ñooñee day mooy mooy mooy saa ya danañ gañe persi yi pibidan si at yu néew rek noonu noonu la ko lañ ko gisee nga xamante ne nga xamante ne marathon moom ne nag ba perse ba ba nasaraan yi gañee perse yi marathon jógee ca front bay daw di daw ngir bëgg a xa- xabaar si xew-xew ba gañaa gañaay la ba mu agsee ne gañe nañ daal ne këpp da daan ci ci ci faatu mu yor coono ba di di gaa yi di di ko feetal daw boobu gis mbooloo moom di daw di àndandoo ñaan marathon la seen seen seen góor googee doon seen waajoojee doon doon yëgle si doon doon xibaar si ngañaay la moom moom la ñuy màggal doon ñëpp ngay màggal te ba bawuñu xel ne fàtte nañ ko borom xam-xam yi xam naa ñoom it ñoo xaw a naag ba marathon ak Kate Club la demal sax ca jeux jeux jeux olympique yi seen sawara woowee nga xam ne moom la ñuy taal di ko ko ubbee kii ba muy takk di takk ba yëfee jeex lo- loola sawara wo- wañ daa jaamu la nga xam ne nga xam ne nga xam ne kufru ak ilhaad moom la ñuy màggal gaa yi ànd ànd ca muy wër gox yi nga xam ne ku ko ku ko aaye ko nekk de sawara wa dana takk di wër foofa mu jógee ci fam mu jógee ci fa- fañ ko fam fa sawara wa mujj tàkkee ba ci yow nga xamante ni kufru bu la ñuy wax kufru bi ñu ngi tuwaay loolu gars yi borom xam ne xooluñu ko ñoo dañ ay ay sew sew la yoo xam ne day mel ne borom xam-xam yi xooluñu ko te kat borom xam-xam yi kat ñoo ñoo ñu ko jàngal ñu ko jàngal ba noppi daa mel ne ñoom xa- fàtte nañ ko seetlu rek bu jigéen di neex baat mokkale alxuraan borom xam-xam yi jullit ñi bu jaaw kàngam yi toog di ko diglu bay jooy bay jooy loolu la ñu waxoon ne suñu Cheikh Gaïndé Fatma waxoon na ko benn rakkam sàngam ku taar woon am am ku ko seen ci dongo yi mag ñi daal di yuuxu mu mu ñu ne leen mu mu ne ñu ne dafa daan mu mu ne addee dafa napp rek lu am solo loolu lu am solo loolu lu am solo nga xam ne taqee diggante dëgg ak fen waaye fi ñu toll mag ñaa nga noonu kilifa yi lañu toog di diglu ndax ndaw si muy jàng baat ba di jeexatal ci ñoom ba ñuy jooy fekk na seetaan rek ki ki na képp la waaw loolu si mu sew duma talaa waxoon ñu ne di sàngam ci géwél yooyu di wax ci rajo yi di wax na na nan naan ay jigéen ñu ñëwoon di siyaare si mu mu naan jigéen seen sëñ bi xool leen sëñ bi ne ko addi sax soxna yi jàmbur ke- kenn du leen xool dëgganul waaw gis gis- gis nga de ma mag ñu baax ñoom su- su- suñu saat yu kon waree su ko waree su ko màggalal di ko date ci weeru massa bi nga xam ne moom neewoon na man lu dul lislaam aw ma ci defar aw ma aw ma ci ci yàq man dama caa neutre ndax neutre gi it lu leer nañ ñi la alxuraan la lakum diinukum waliya diin yéen day am ngeen diine ma am naa diine sama yoon nekku ci ndax qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun wala ana aabidun maa abadtum wala antum aabidun maa abud wala ana aabidun maa abadtum wala antum aabidun maa abud lakum diinukum waliya diin lu man di am yéen du du ma jaamu li ngeen di jaamu yéen du ngeen di jaamu li ngeen di jaamu kon kay jeex na lakum diinukum waliya diin waaye sëñ bi loolu leer na de loolu leer na loolu leer na kon ku mel ne seen si Cheikh Saliou borom xam-xam yi nag ana ñoom borom xam-xam yi dañoo it ñàkk gi tax ba duñ wax dara ñàkk gi moom manto yi ba mu taqale koo manto yi xam-xam ak manto yi sëriñ ba mu taqale koo borom borom xam-xam ne fee sëriñ ne fee sëriñ ba la ñu jox milliards ya borom xam-xam ba la ñuy laaj masala ya sama ko borom xam-xam ba bu waxee ma- ma- masala yi daanaka du daanaka do do do am solo benn waaye damaa wax ne ma bu kiimtaane benn jàngalkat ne ma ne ma ne ma su sëñ kii ah xaw ma nan nan ma ko waxante woon ne ma ne ma benn waaye da da koo laaj ne ko as ndaw da koo laaj ne ko waaw luy suganke nee na ma ne ko ma ne ko lu tax di ko laaj mu ne mu mu mu ne mu ne woykat boobu kat day woy soxnaam ba ne bu bu doon góor mu ne su su su suganke la sëñ boobu daal ne ah man de yoon jaxal ma mun bañ dalee waxtu saw ba tey jii kenn xamu ko tey waykat bi wax ko rek ci ay waxam rek ñëpp bëgg koo xam mu ne waaw ku mënoon a jël ci waykat yu siiw yi tëgg leen ci am penc ñu ñu woote ñu ñu way ba noppi borom xam-xam ba soog ba wax de kon de kon xamaat na baax waaye waaye waaye nag jéegi ji am mooy ne boo waxee du jàll ndax la ngay wax jëf ji di woon na ko bu yàgg introduction ba nga dé ba nga def di woon na ko dañoo nekk njaarim di waxtaan sunu cox saawa guddi nii am ay gars yi tëggkat yi jigéen ñi ñëw fa ñuy fecc ka nangam mu ne gars yi nañ bàyyi waxtaan bi waxtaan bi amatul njëriñ ñu ngi tëgg ba ci biir bâche bi bâche bi ñu ne tàmbal ñu lool jigéen ñi neew ne kon kay amatul njëriñ ngoog yëf yaa ngoog borom xam-xam yi tëruñu seen bopp waaw tey nag tey nag it nag wax dëgg yàlla nag li li leen war ñoom jombul ña ngi ciy jéem dara xanaa kay sëriñ si kay ñoom la ñuy wax sëriñ si sëriñ si kay ñoom ñoo xam ne ñoom ñoom dëgg tigi tigi tigi la war aar aar islam aar islam ñëpp la war sax waaye ñi yàlla jox doole ji ñoom la war tigi tigi danañ waxtaan ci mbirum saar insha allahu taala dañ koo bëgg a def waxtaan woo xam ne jàngkat yi français yi sax tubaab yi sax ñoom it danañ ca digg lu yees mën naa am wala da wala bokk seen xel dana faa jàngkat yi daara yi nag ñoom ñoom laa koy gën a jubale jubale ndax ndax ñoom yombul maîtrise wuñ concept yi yi tubaab yi di créé di ko jàllale ci média bi ak journaliste yi nga xam ne seen seen seen xam-xam ci lislaam daa yatuut ba luñ dégg ci tubaab bi fëkk ko kon yow ak si jàll kenn kenn kenn waru ko màggale ci yooyu moom léegi lislaam rek la lu lu lu lu dul lislaam amu ci defar amu ci yàq may it noonu foofu laa ne espèce bi yaa nekk ba fekk borom bi sonal ko taxaw